vidéo bi bokk na ci bi nu gën a partagé fële ca Espagne Arda Güler dugg seem gu njëkk mbégte lay doon ci képp koo xam ni ab merengue la gars yi daw na yaram kàddu yi nga xam ne Marca yëkkati na ko teg ko ci taabal ji xam le ni loole la Arda Güler doon coppati ci biir waxtaan ci biir ñax mu tooy ma ne ca Espagne kontaan naa ci yéen cher abonné béggee naa leen yokk leen seen loxo ci abonnement yow mi ko defagul mën nga koo dàbbar ñi léegi mere ngay ziar naa leen bégge leen catalan yi célibataires yi dimanche dañuy gundaandaat ba heure bu leen neexee ndax daanaka kenn laaju leen dépasse ay célibataires yu mag a mag lan teyit sedd baa ngi leen di bëgg a rey ñoom ñi le di catalan yi ànd ak Barcelone di samay gars yi di samay xarit ma kontaan ci yéen continuer nag ci yi conversation bi nga xam ni kii di Dani Ceballos di grand ci kii di Goulart Arda teg na ko ci taabal ji marka nag yollu ngar na démb nag gars yi bi ni partagé vidéo bi ñàkk xam liñ doon waxtaane bari na xanaa amoon ci yaakaar waaye nag marka teg na ci taabal ji lu leer Arda Güler li mu doon wax ki li nga xam ne mooy Sabès grand frère bàyyi ma rek ma dóor li li nga xam ni mooy cornel bi mu jëntal ga nag ki li nga xam ne mooy grand frère nangul na petit frère li nga xam ne mooy mébétam mébét ma nag daanaka ca poto yooyu la mujjee ndax moom Arda mujj na dóor boobee cornel ba mu ko dóoree nag heurté na li nga xam ni mooy poto bi waaye nag mbégte la nekk ci Espagne ndax ñi ko doon partagé ñëpp xol bu sedd lan àndal ci gone gi confiance bi nga xam ne jox na ko boppam nit nag pour nga am confiance wala ñu jox la confiance yaa koy njëkk ci sa bopp bu ko defee gars yi wóolu la mën laa teg ci taabal ji loolee nag la couleur Arda def mu nekk mbégte matsam bu njëkk nekk mats boo xam ne bu neex a neex la bu supporter yi bég waaye nag loole du nekk loo xam ne nag dañ koy dàbbar ñëwaat ci yeneen mats yi di ñëw ndax jàpp naa ne moom Arda fi mu toll nii dañ ko doon ñamal ci coupe de roi bi waaye day xaar après ndax mi ngi ci am njàng ba tey it diri sa gànn gay démb ëgsi na ci teneer bi ma nga noonee gone yi ànd ak moom xool bu sedd guy namm gun ko namoon ak ambiance bi nga xam ni moom Guèye Yekini Idrissa dana ko am ci biir tanière bi ci wetu ñoom Sadio Mané ci wetu ñoom ki li nga xam ne daanaka mooy Nampalys Mendy loole nag match bi tas na ma nga noonee jërë ngeen